Ousmane Sonko euh, jumaaw Touba la jullee. Mhm. ñu gis ne ni mu fi ñëwee ak ba ni mu génnee aussi amul dara loo xam ne nii euh, gis nañ ko si muy incident même bu nekk am na tiitul nañ ko si. Mhm. mais kàddu yi nga xam ni moom la ko sëñ Mountakha dénk am na polémique bu seet am na ñu jàpp ne que dafa jox ndigal euh, Ousmane Sonko ngir mu ñibbi dakaar bañ a dem Mbàkke ngir benn ay benn mbiicu ak mbaaloo bañ am Mbàkke ñu gis ne loolee kat Ousmane Sonko defu ko. kon mel na ni digal nañ ko bañ def li ñu ko digal loolu ndax wér na. xam nga président Ousmane Sonko bi mu jógee euh, ay nu mhm. siyaare ji woon seen abib si. Mhm. bi mu dëppee ci la yëg accident yi xew Mbàkke mu bind ci page Facebook am ne maintenir na bi suba dee mhm. ne bu ñëwee dina siyaare ji xalifa général di Baye Fall. bu fa jógee dafa teg julli jumaa jot dina dem julli ji jumaay Tuubaa. bi ñu ko annoncé ñun li ñu war a def def nañ ko ndax jumaa ji dafa am loxo yu ko sëñ bi teg. mooy muqaddimatul xidma. ñoom lañ njëkk contacté ne suba dañu war am gan gu war a julli si hmm. ñoom ñu wax ñu critères yi nga xamante ne bu ko remplir jàpp ne dina gën a dina baax ba accident am ci jumaa ji hmm. critères yooyu yëpp ñu wax ko président Ousmane Sonko lépp li ay Mumbaay ay politique la yooyu noonu ndax yàlla dogal na président Ousmane Sonko du première fois mu julli jumaa ji hmm. xëy na léegi la jëmm ji ëpp coow mais julli la fépp fu ko julli ajjuma fekk dina fa jullee jumaa kon nag bu ko ajjuma fekkee yoon la mu def délégation ñu julli si bi ñu ko tegalee critères yi nangu na yëpp ndax xam na lan néegu bi yàlla lan lan la aajowoo ci worma. Mhm. ndax ab jullit la di jullit boo xam ne day pratique ab jullitam. Mhm. bi ñu ñëwee waa jumaa ji. Mhm. amuñ ci benn parti politique bu ñu bokk. ñëpp lañ yemale. te pression bi ñu leen teg jamono ji même 2012 bi Macky Sall nekk opposant bëgg a julli si jumaa ji pression bi mel ni leen waa PDS tegoon. maanaam ban pression la leen teg pression boo xamante ni mooy ñoom jàpp nañ ne dañoo fo dañoo jox benn favoritisme Ousmane Sonko nangam ak nangam seen affaire caaxaan yi a na mu teg ci mu ah ndax biñu ne suba la Ousmane Sonko ñëwee ñu ne ah, fa di yuuxu lan pour yuuxu yuuxu wan Sonko def meeting ci biir jumaa ji ah ay Sonko Sonko ak te loolu dégg nga ma def ci bi ñu ne suba lay ñëw kon ñun li ñu war xam ne ko ndax président Ousmane Sonko bépp manifestation bu mos a mhm. dina yëkk téléphone am woo ne ma defal déclaration ne lii may woote concerné wul Touba neel képp ku am yëngu-yëngu def ko ndax Touba dafa am borom mhm. sëñ Mountakha mooy borom la fa borom bëgg mooy am ala kulli alin mhm. te ñun ñeenuñu yàlla dëkk Touba yaroo Touba borom ne lii laa fi bëgg ñu fay def naa ko sëddu noonu ndax bu dul dara suñu taal bi moo lii ñu nekk di ci yëngu ko si bu ñu sëñ Muntaxa ne woon bàyyi leen ko fii lañ koy bàyyi ci plateau bi kon jàpp naa ne ñun duñ xotti war mooy dëkk bi mhm. président Ousmane Sonko it comprendre loolu moo tax ñooy seul parti boo xamante ni amuñ permanence Touba parti politique yi ca des yëpp yëpp yëpp ci biir dëkk ba la seen permanence nekk ah, Mbàkke la nekk ndax borom bëggu fa ay yëngu-yëngu politique bu ñu woote concert casserole président dina woo ne ma defal déclaration ne may woote Touba bokk ci kooku bëgg a def na nga dem Mbàkke bi ñëw ñëwit noonu la ko defee ne defal déclaration ma def ko ci télé yeeg rajo yi mm-hmm. ne président Ousmane Sonko ne képp ku koy teeru ji wala képp ku koy def yëngu-yëngu da nga bàyyi ba ngoon nga fekk ko Mbacké mais li indi si jumaa ji mooy julli si bu ko benn militant gunge bu ko benn sympathisant gunge bu jullee pare day génn dem ñibbi te noonu lañ ko defe bañ na ko bi ñu eggee ba ci jullikaay bi man ak moom ñoo nekkoon ca biir fa ñu jullee ci waa bi ak Assane sëñ mm-hmm. a nuyu Serigne Mountakha Serigne Mountakha la mu ko ay médias du lu ñuy wax ci kenn ku ko dégg amul ta xam nga ne wax joju nim soufé sax xam nga ne yow ëppri nga ko si bok ba nga koy ba koy moomale xalifa général de Mouride parce que mën ko xam ni amé amee warma ci nit ni amé amee teggin ci nim rusé nit du naan ko nga fexé bu fi def dara lolou sëñ Muntaxa mo lolou wax lu wax lu mel non kon japp na ne l'observateur gi bind loolu mom mi ko bind sax xam na ne li bind deug d'accord xam na ne li mu bind du deug mais mais tamit ndax euh, sëñ bi ko ko gis xam ne akir Ousmane Sonko xam na da ko accueillir comme dom da ko accueillir comme sëtam am ci mom ciofel bu mat seuk ñewon ñeewante ko lool ba président Ousmane Sonko sax xam na loolu bi mu génn wax sëñ bi de ku gis xam ne damaa ñeewante ba pare ne ko damaa nekk ci nekk ci fatu ma génnee dinaa la woo ñu waxtaan ndax sëñ Mountakha ku ci ne xam ne bi mu jógee Porokhane ba léegi jóge ci liggéey université ba léegi génnul mais déclaration yëpp boo gisee li ko waral mooy am na ñoo xamante ni seen xol dafa bon ci li Ousmane Sonko am Touba neexu leen ndax bu ñu sañoon heure bu Ousmane Sonko duggee Touba rek scandale am fa wala jiyee am fa mais loolu xëy na nañ nañ kalaame yàlla ndax Ousmane ni mel ci xol Touba yàlla moo ko def ñu bëri doon ko xaar doon ko teewlu moom mooy Ousmane Sonko moom génnoon ne wax ne amoon na waxew ko nii mais noonu laa ko déggee amoon na jafe-jafe pour gisante ak Sëñ Muntaxa euh, mu mel ni kon occasion la woon euh, lan moo taxoon loolu ndax jàpp nga dafa am distance seen diggante ñoom ñaar wala rek dafa fekk ne tolluwaay la rek mais nekkul loo xam ne. xam nga sëñ Mont sëñ Muntaxa amul benn distance ak benn murit mais ni mu yàgg amee rek ci histoire politique Sénégal bépp xalifa général de murit bu fi nekk. Mhm. pouvoir bi fi nek dina utiliser woo waa këram mm-hmm. wa ila ñuko ko mm-hmm. ba principal opposant bu du am ci mom accès nam ci wara am accès mm-hmm. mais du ciag ni jimmi xalifa bi moy tej ay bunta ba kenn du am ci accès président Ousmane Sonko fofu alhamdullah fofu la doon waxe ndax ku ci nek xam na ne président Ousmane Sonko yag na ciar ci Seigne Muntaxa bu tambalé wax rek ñu ne ko tàllal Seigne bi day ñaan loolu moom feeye la yo xam ñepp ñëpp gisandoo nañ ko président Ousmane Sonko jógee ni fi ciar ci Seigne Muntaxa wax ñaari kaddu ñetti kaddu ñuy génn kaddu yi jox ko presse bi manipuler kàddu ne sëñ bi ne Ousmane Sonko ñu faatu ñëpp yaay responsable bi. waxoon na waaw amoon na tam kon kon moo lay wan ne kon moo kon moo noonu kon moo lay wan ne rek président Ousmane Sonko moom ak sëñ Mountakha seen diggante kenn xoj ci bëri ci dugg sëñ Muntaxa kilifa la goo xamante ni ñëpp di ko fàttali wala boog di fàttali maanaam ba kenn nu mu amee solo ci lislaam xam nga booba it maa ngi fa woon boobu mi ngi nekk bi ñu ne suba la korité gi mhm. bi événement marché mhm. am ci yow yaakaar moo tax ma di la wax dama koy wax pour ko ci yow mais Afrique gépp laay waxal mhm. kon sëñ Muntaxa moom ku am yaakaar ci Ousmane Sonko benn loolu te vidéo boobu mi ngi nekk 24 minutes ay politiciens APR ak ñu ne ci biir kër ba lëkkaloo génn jox ko presse bi dagg ca lam la neex te après it bi mu jaaxee noonu laa ko leer la waate mais sëñ Muntaxa moom xalifa général des mourides la comme ni Ousmane Sonko def heure bu demee ci kilifa diine li mu koy wax ndax yàlla suturaal nañu it depuis 2016 hmm. ba léegi kilifa diine ko mu teg tànkam teg naa fa sama tànk fu mu toog di wax naa ko fekk mais képp ku may waxal dalay wax ne yéen bugguñ seen féete ci politique dañ fee ñëw ngir sàkku ñaan ñoo fi ngir xamal suñu bopp hmm. mais fi ngeen positionné wu yoon mooy leen ngeen di jël ay position ci politique ndax seen njaboot fépp la nekk ndax njaboot sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa ni nekk APR nu lay nekk Pastef tey jii da leer leer yàlla même nit ñi bu ñu respecté Ousmane Sonko war nañoo respecté millions de Sénégalais yi ko topp ndax xanaa doon nañu ko topp ñëpp Ousmane dalee nañ njaboot a ilaa dañoo xamul fu ñuy teg seen tànk mais da ngay da ngay da sentir ne léegi yoonu murit dafa mel ne dafa am ñoo xam ne ñu ko jàpp groupe WhatsApp ñoom ñooy retiré ñooy dugal ñooy xool ki nekk murit ñooy xool ki nekk xam la neexee ñu génn ko gis nañ tam bi mu génnee si jumaa ji jërëjëfe sëñ Tuubaa la doon dégg nan ngeen organiser loolu parce que am na ñu miin dëkk ñu jàpp ne bu ñu fa doon yuuxu turu Sonko wala nangam rek mënoon na am beneen tournure boo xam ne nii amaana doon li ñenn ñi doon njort mënoon na faa am. waaw moom moo moo santaane loolu moom bi mu génnee xam ne département nar na am fii ndax nit ñi kenn moomu leen ndax ñi fa ñëwoon ñëpp xam woon ne Ousmane Sonko di julli si jumaa ji ñu ci bëri bokk. Mm-hmm. bi ñu yëgee ne président mi ngi ci jumaa ji ñoom ci lañ ko xaar saafoonteeg moom mom pour bu benn débordement am fa mo ne kon dañ wax jërëjëf sëñ touba xana jërëjëf sëñ touba nag waaye mën a manipuler manipuler wala nga mëna a jabolise mën a jabolise nag jërëjëf sëñ touba xana Ousmane Sonko wuro ko wax nit ñu wax ko te déggo loolu de ñi wax ñëpp nga xam dañ leena fay ñu nekk ay ta ta, ta japp naa ne nit ki lépp lu muy def digënté 2019 ba légui amo ci ndam war nga ko bay te ñi gis ñu tak radio yépp di jëma jabuli Osman Ousmane Sonko 2019 la ñu mon contrat ba légui kon nak ñi leen signé leen contrat ne leen yaq leen der Ousmane Sonko jabolise leen ko war nañu retirer contrat bi signé laaj ñeneen contrat xam ne diaboliser Ousmane Sonko Touba moom peine perdue la kenn mënu ko. mais tamit bëri na loo xam ne yéen dañ leen koy ŋàññee mooy dafa am ñoo xam ne mën na am bokkuñu seen parti officiellement mais dañuy tegtaloo seen parti di yëg ay kàddu yoo xam ne nii amaana du kàddu yu wor ma si ay kilifa. xam nga jàll man question bi yii du ma ci sawaratoon ndax xam nga président Ousmane Sonko bi ñëwee màggal 2019. Hmm. moom ci la ubbe woon jàng yi. ndax dane man lu ma am diine moo ma ko may. Hmm. kon képp ku may identifié wu wala nga may tuddoo. di yëkkati kàddu gu ñaaw di ko jëmale ci kilifa diine bokk ko ci man daaka naa jabaat booba la waroon a close waaw